xol yëpp a tooy lool jëm ni jooy lool sa dem gi tiis lool Seex Saaliw Mbàkke ñu def la yaakaar ngay sunu yaakaar di sunu jàmbaar Seex Saaliw Mbàkke sa naan laal sa jëf yi lii lool ngay sunu wittal Seex Saaliw Mbàkke fu nuy jëleeti fu nuy ameeti fayam du tuuti Seex Saaliw Mbàkke doom ngay ñu jooy tu tànk yee gooy dootu fi am ci Seex Saaliw Mbàkke wéet na si dun bi wéetal na dun bi defar na dun bi Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke benn ci man ni yamul ci man mi man maa man mi Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke wéeru si yow bi sant la yow mi jéggul ma man mi Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke waroon na wàcc la ngay am wérgu yaram am Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke dañu bëgg doom nga yar sunu doom ak sunu doomi doom Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke nga làqu tey ji metti ci ñun ñi jooy nañu ñun ñi Seex Saaliw Mbàkke na la daawoo loo yow di la bës loo berne la xam looy Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke di nax la ngay ree di berne ngay ree defal la bay ree Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke nga am sa itte mu jox la itte fajit sa itte Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke du bëgg ngay doon day bëgg ngay aar njaboot gi jàmbaar Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke ku am ku mel nii mu dem ci yow nii metti na yow nii Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke man du ma yaakaar ku ami bàkkaar ëllëg ma koy xaar mu naa ma xaaral Sëriñ Saaliw moom ku ko yaakaar du ami bàkkaar ëllëg ku koy xaar Mbàkke Seex Saaliw Mbàkke Sëriñ Saaliw ëllëg ku koy xaar du ni la xaaral